ànd ceeg Baba Ndiaye mbaa yéen a nga ca Abdoulaye Sylla léegi nag mooy doxal ci bopp Sénat bi ginnaaw ndogalu njiitu réew mi ma Sall bés bi la journée moom Abdoulaye Sylla kay démbala ko duur ngir jébal nga yi te moom président bu Sénat wu yees wi nag nee na lépp lu yoon rek lay doxal ci li ñu ko dénk laa lay wax nii yëgle kaay bi ne en nga yëg nga ñàkk yëg ñoom membre sénat bi waat ni ki démb liggéey wu rëy moo leen di xaar force bi ne Abdoulaye Sylla kay ma ngay joxe ay garantie dëgg ci luñ ko dénk ba noppi ne dossier yëpp dina ko doxal waaye lépp ci yoon la koy teg te bépp doomu Sénégal boo xam ne bëgg nga bokk ci élection yi te yoon dogal ko ñoom waa sénat bi li ci war lépp dinañ ko def yëgle kaay bi ne Abdoulaye Sylla kay ki naataangoom ci sénat bi nee nañu bépp candidat boo xam ne kon éligible yoon bu Sénégal dinañu def leen ba ñëpp bokk ci élection yéene kaay bi ne Abdoulaye Sylla gaa gi naatàngoom ne nañu yu tegu ci yoon ba noppi leer nañ bëgg laas ne Abdoulaye Sylla nag bu dee démb samp nañ ko ci boppu Sénat bi tamit démb samp nañ ko ci boppu conseil constitutionnel Mamadou Badio ci bés bi le journée Abdoulaye Sylla nag tekk ne nombal dàngam ci conseil constitutionnel te moom président conseil ba woon nee na fichier électoral bi l'opposition bi Sénégal di jaaba ko maanaam yi nga a taxaw dëgg ci coow Ousmane Sonko bi les école cour suprême kay yoon ci mbir Ousmane Sonko yi bu nu ci les écoles yéene kaay l'observateur ne Ousmane Sonko kay waxtu wi ci guddi gu ba sëtagul dëgg la nekk ginnaaw procédure yi nga xam ne loon lettre Ousmane Sonko bi ci lu jëm ci wàllu wér-gu-yaramam ñoom ñaari ñëpp fëgg nañu Ibrahima Daouda Dépôt lii yëglekaay bi ne muy inspecteur Idrissa Sow ak adjudant Issa Ndione ñoom ñaar ñëpp doyen des juges fëgg na leen mandat de dépôt libération yamu teen ndaxte nee na Pape di chroniqueur ci Walfadjri moom tamit mu ngi ci loxo section de recherche te poste bi mu def jëm ci tekki ndoom ba tànk général Tine bu gendarmerie bu Sénégal lii ko yóbbu ci yoon enquête ne Aliou Sané ba tey mu ngi ci loxo yoon ndax benn weer ngi ba tey mu ngi ci kaso bi ay waay lii tamit jàmm la yëglekaay bi ne en tout cas moom nag gaay ngay sàkku dëgg ñu bàyyi ko ndaxte nee nañu moom coordinateur yanaa ma place am kaso bi bi bés fi la journée njiitu réew mi Macky sal ma ngay mobiliser dëgg ngir Amadou Ba te démb nag teer nañ ñuy téeroo buur président Macky Sall ci Kédougou ginnaaw gi nag amal na fa conseil présidentiel te ni gi tey jii moom njiitu réew mi Macky Sall dina inauguré tali Kédougou Salémata ba noppi lancé travaux yi nga xam ne moo jëm ci xaal Maako ak Kédougou jàpp Moussala Banda Fati di Nifelo ak yoonu Bambou jàpp Xosanto yëglekaay groupe mi yaabi ne moom Macky Sall kay niki ëllëg ñu ngi koy xaarandi ca Kaolack te foofu itam dina fa visiter chantier autoroute Mbour Kaolack laataa muy figure fa sphère ministérielle yi dem ca Fatick soleil national enquête yéen a kaay ak Vox Populi ne programme d'investissement prioritaire bu nag moom njiitu réew Macky Sall nee na milliards suñu ko bona ci nar a dugal jag leen fukki mesure ak juróom lépp jëm ci Kédougou ngir dëkk ba daal suqaliku yëgle kaay bi ne moom njiitu réew mi Macky Sall nee na ginnaaw mbëkk bi nag ak doomi Sénégal yi ñàkk ci géej gi wala boog ci désert bi danañu samp ab waxtaan wuure jaaree ci géej gi looloo tax muy sàkku këréw liggéeykaay yi yëpp ci Sénégal ñu xas seen tànk tubay ngir jox liggéey ndaw yi Sénégal les économies njiitu réew mi Macky Sall li am ci mbëkk mi kay naxaru na ko lool li tax daal muy sàkku ndaw dëkk bi des ci réew mi te bañ a tere seen bakkan ci mbëkk mi te ca Kédougou la mu nekk nag lay base campagne pour Amadou Ba ndaxte sàkku na ci gaay yi ñu wéyal liggéey bu mu sumb ci réewum Sénégal ngir fëtal Amadou Ba ci élection président yu dëgmal ngir wéyal plan Sénégal émergent ngi mel ni mbàccum gerte ne APR kay mooy adversaire wu njëkk wu Amadou Ba candidat coalition Bokk Yaakaar doon premier bu Sénégal Jean Charles Biagui ci Sud Quotidien lii lépp nag li ko waral mooy Amadou choix par défaut looloo tax ba léegi nag gars daal des nañ ko gëm dëgg laa wax le témoin ne ginnaaw génn Souleymane Jules Diop ak Abdoulaye Bibi Baldé ndax Amadou mi mën a ko njiitu réew Macky Sall daal doxal boppam yëgle kaay bi ne en tout cas ci jege ñaaleem nag nee nañ Sall mooy firnde moom njiitu réew mi Macky Sall ak gouvernement li leen dégg na cee mu jeex tak la lay ni Aminata Touré ni lii nag du benn yoon tournée économique waaye daal campagne déguisée la te te dee yëgle kaay bi ne Ismaïla Madior Fall jëw ni gu ñu dénk wàllu bitim réew ci Sénégal nee na yoon njiitu réew mi Macky Sall yëgle kaay bi ne ma ngay fësal programme bi xam ne bëgg na ko teg ci boppu réewum tribune nee na bëgg-bëggam dëgg nag mooy sunu réewu Sénégal suqaliku ci wàllu koom ba ci social jaaree ko ci banque boo xam ne dina fa dugalu tool ci 700 milliards lépp na nar a tukkee ci recette yi bàyyi ko ci pétrole bu Sénégal ak gaz bu Sénégal moom Alioune Sarr ni banque d'investissement dëgg Sénégal ngir taxaw industrie ak këru liggéeykaay yu yemba mbaay ba ci yu dugg doom yi Alioune ne bëgg-bëggam mooy def Sénégal ab ëpp de raffinage d'industrie d'or ba noppi samp benn comptoir d'or ca Kédougou moom Alioune di réew moo xam ne dëkkuwaay bi day yemb ci ñëpp ngir doomi Sénégal yëpp amu fu nu dëkk Les Échos moom xëy dem ca Linguère ak révélation boo xam ne ma nga bàyyi koo ci Sud-Est ndaxte ñoom syndicaliste bi ëmb jàngalekat yi nekk ci dëkk ba nee nañu lu toll ci ñaar fukki école ñoo tëj ràpp seen bunt te ñoom ñëpp amuñu ay jàngalekat ay waay li tamit mbaa jàmm la yëglekaay bi ñoom syndicaliste yi kay yemu ca ndaxte nee nañu am na ci yenn ci ci mbiri ñoom juróomi sinwaa yëpp am na seen ni yaa ngir wala seen commerce yi Ndakaaru capital bu Sénégal yëglekaay bi yamu ca ndax nee na nag police bi di Alioune Faye ak Ndiaga ñoom ñaar ñëpp ñu ci loxo yoon ginnaaw ay njuuj njaaj yi leen toppee toll ci téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróomi million ñu bàkku jëm ci lamb ji ak sunu lamb bi ne Boy Niang 2 nag waxtu yu mooy yaakaaru Pikine ginnaaw jëlu Ama Baldé ak ak les écoles ne daanu nañu ci làmbi Sénégal di amaa ba ak Eumeu Sène ndaxte les dikoon nee na benn écolière boo xam ne fukki at ak ñaar la am la benn waaye buy jaay ay ndugg seew ci marché bi toll ci fukki at toll ci ñeent fukki at ak juróom-ñett violé ba noppi ëmbal ko teg ci mais da ngay seet loolu rek